قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul adaan wal jaamiu saxiix wal abu abdullahi muhammad ibn ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun ida bakal imaamu fi salaa bi nga xamante ne moom mooy ci biir julli ba mu indi ci wax ji nga xamante ne moom la sayyidna abdullah ibn shaddad ibn al-haad radiyallahu taala anhuma wax ni dafa dégg xëqatu yéen sayyidna umar ibn al-xattaab radiyallahu taala anhu fekk mi ngi woon ci moom ci jéexitalu sàppe yi sayyidna umar radiyallahu taala anhu doon jàng innama ashku bathi wa huzni ila allah gisoon nañ ci tamit xadiis sayyidatna aïcha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne gisoon nañ ko lu bari muy wax ci jeexitalu euh, fan maanaam feebar bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feebar laataa muy laqu ak wax ji xam xamante moom la wax na ne Seydina Abu Bakar radiyallahu taala moom moo war a jiite nit ñi nañ ko digal mu jiite nit ñi waaye li nga xamante ne moom la teewoon moom mooy ne kon Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu dafay jooy su dee julli loolu muy tegtale ci anam gu leer ci ne kon jooy du yàq julli gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise ak masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju woonu walillahi alhamdu woon min na léegi nag génn nañ bu boobaa comme niñ ko gise woon ci jeexitalu jotaay bi weesu ne euh, léegi jeexal nañ li nga xamante ne moom mooy masala yi nga xam ne ñoom ñoo war a aju ci imaama ak maanaam ci imaam ak ma'muum ak yi xamante ne imaam bi war na koo xam ak naka noonu ma'muum bi war nañ war nañ koo xam rawatina imaam bi ngir ne imaam bi su ko réeree mën naa indi musiba yu rëy wala boog mu indi ay problème yu baree bari ci julli jàmbur yi ak yu mel noonu léegi nag inchaa allahu taala dañu war a gis li nga xam ne moom moo aju ci euh, buntu maanaam mu war a aju léegi nag ci inchaa allahu taala ci yeneeni bunt yi nga xamante ne dafa aju ci wàllu sàppe ak defar sàppe ngir ne comme li nga xamante ne moom moo tax ki ñu ci kitaabul azan imam al buxaari rahimahullahu taala indi ko mooy ne gannaaw ba woo nañ nit ñi ñëw julli si nag ba nga xamante ne lijjanti na mbiru imaam ak ki nga xamante ne moom mooy ma'muum bi ak li nga xam ne moom mooy charte imaam ak li nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu diggante imaam ak ma'muum ak nga xamante ne moom la imaam war a meloo wala boog mu war koo xam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci loolu yëpp mu daal di indi nag li nga xamante ne ñoom moo aju nag léegi ci ñuy war a ñëw taxawal julli gi te taxawal julli gi li nga xamante ne moom moo ci jiitu moom mooy defar sàppe yi loolu moo tax imaam al buxaari rahimahullahu taala indi juróom-ñeent bunt yoo xamante ne ci loolu lay aju maanaam ci wàllu masala yi defar sàppe lay daal di aju maanaam kon imaam mu koy njëkkee ci bunt bii nga xamante ne moom lay wax naan baabu taswiyati sufuufi inda al iqaamati wa baadaha baabu buntu taswiyati sufuufi defar sàppe yi inda al iqaamati foofu maanaam maam liqaam bu taxawee wo baadaha ak ginnaawam maanaam moom mooy bu ñu taxawee war a liqaam maanaam ñu daal di defar sàppe yi wala boog su fekkente ne julli nañ ba pare maanaam iqaam nañ ba pare tamit ñu mën a continuer di defar sàppe yi loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi noonu wax ko maanaam bu boobaa muy ngir leeral ne sàppe yi mën nañ koo defar moo xam ci njaal beenu maanaam bu ñu liqa bu laataa ñuy liqaam lañ koy defar wala boog Euh, bu ñu liqaamee ba pare wala bokk ci jamonoy liqaam bi maanaam ñu mën nañuy continuer di defar sàppe yi loolu maanaam euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir ne taxawal sàppe gi dafa bokk ci li nga xamante di defar sàppe dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy euh, lii mottali julli maanaam borom bi subhaanahu insha allahu taala nañ ko gis ci biir xadiis yi maanaam ay am solo gi nga xamante ne moom la defar sàppe yi am solo comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa daal di ah, bindee malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam ñuy taxaw di di julli waaye ñu nekk ñoo xam te ne tamit ci seen biir maanaam di taxawal ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala di def ay sàppe naka noonu borom bi subhaanahu wa taala digal jullit ñi tamit ñu defar ay sàppe maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ne malaaka yi uli aj ñaxatin mas naa wa su wasula sama rubaa maanaam borom mi laaf lañ yoo xamante ne par <laughs> ñaari laaf lañ am wala par ñett wala par ñeent naka noonu ci seeni julli tamit julli tamit borom bi subhaanahu wa taala ko def mu nekk ay ñaari rakka par ñaari rakka wala par ñetti rakka wala boog par ñeenti rakka maanaam naka noonu tamit lool moom mooy li nga xamante ne moom moo xew ci ci mbiri euh, ci mbiri euh, euh, maanaam malaaka yi tamit maanaam sàpp yi nga xam ne moom la ñuy def ci seen kanamu borom subhaanahu wa taala maanaam comme ni nga xamante ne yusabbihuuna al-layla wan-nahaara laa yaftaruun borom subhaanahu wa taala dañuy sàbbal buuru borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy dañ koy jullil guddi ak bëccëg te duñu ñu duñu du ñu dog loolu tamit moom mooy li nga xamante ne nit ñi bu ñuy julli tamit ñu war a taxaw noonu comme ni nga xam ne noonu la ko malaaka yi di defee comme ni nga xam tamit lool la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ci position wu julli benn bu ci nekk malaaka yi ñu ngi koy def atati samaa'u wa xuqalahu an taqitta ليس في سماء من من ليس فيها موضع قدم ولا موضع اصبعين الا فيه ملك ساجد او قائم او قائم او راكع او ساجد من آه، ملا من اسمان سي كي كي جي نتا يلو كي كي جي ngir ne amul benn bërëb boo xamante ne bërëbu lu dul ne am na malaaka bu fa taxaw di su di taxaw wala borom subhaanahu wa taala wala boog mu ruko wala boog mu sujjóot nag moom mooy li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala dajaleel aadama yi ngir ñu koy def ci biir julli maanaam nga xam ne malaaka yi ñoom benn lañ ci def waaye nag borom bi subhaanahu wa taala dafa dajaleel doomu aadama lépp moom ci mu def ko ci biir julleem maanaam nga gis ne jaamu yàlla yi mboolem malaaka yi la borom bi subhaanahu wa taala tënkal ci juróomi waxtu yu ñoom ñu koy def beneen bi ci des moom mooy ne kon sàppe yooyu nga xamante ne moom la ñu def am solo gi nga xamante ne moom la am solo ñu taxawal sàppe yi noonu tamit la ko malaaka yi defe ci seen kanam borom subhaanahu wa taala naka noonu tamit loolu moom la borom bi subhaanahu wa taala bëgg ci jullit ñi ñu taxaw di xare ci yoonam ngir ne lépp maanaam li takuna kalimatullahi al-ulya maanaam ngir kàddu buur yàlla subhaanahu wa taala nekk li nga xam ne moom mooy li yëkkati ko moom mooy li te loolu moom la wax ci sóoratul safi nga xam ne saar boobu tamit noonu la ko tuddee naan inna allaha yuhibbu an inna allaha yuhibbu alladina yuqatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus insha allah taala dinañ ko gis fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax wataraasu maanaam nga xamante ne ñoom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom taxaw di xeex ci yoonam maanaam ni euh, kem maanaam ay tabax yoo xamante ne maanaam tabax bu ñu bu ñu bu ñu yu ñu raax la dëpp tappale leen te loolu noonu nga xamante ne moom mooy li xew ci biir euh, bu nit ñi nekkee ci dara ngir yëkkati mbir yoonu yàlla ngir mën a taxaw naka noonu ci toolu xare noonu tamit la bëggee ci julli ñu def ko ci te comme ni ñu ko gisee woon ne bu fekkente ne loolu amul ci biir julli loolu bu boobaa moom muy indi ci biir mit ñi tamit maanaam ci société bi tam problème yooyu daf ci daal di bari comme nga xamante ne noonu la ko képp kenn mën a seetloo imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon ubbeeku bunt bi nga xamante ne moom mooy baabu buntu taswiyati sufufi maanaam taxawal sàppe yi yemmale sàppe yi maanaam taxawal ko ngir ba mu yemm maanaam mu mën a jub ak mooy mbir mi ngir maanaam mbir mi mën a jub ah, te loolu day tekki tamit maanaam al ah, ikmal wala boog al itmam maanaam mooy matal ak mottali comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxee ne fa lamma balaga ashuddahu wastawa maanaam ak ah, fi nga xam ne moom la xeent yàlla Muusa alayhi salaatu ba nga xamante ne ci la yegg fa balaga ci la jotee ashuddahu ah, ak tar maanaam ak ak ak dooleem wastawaate mu mat maanaam loolu lay tekki maanaam kon nga gis ni kon taswiya maanaam mooy matal bu boobaa day tekki matal li nga xamante ne moom mooy sàppe yi niki noonu mottali sàppe yi bu boobaa masala yu bëri dañ ci daal di dugg maanaam moom mooy kon ne sàppe yi bu mu ñu teg sàppe dañoo war a njëkk teg sàppe yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu mat da ba noppi ñuy doog a def beneen sàppe waaye doo def benn sàppe matagul ba pare doo nga teg beneen maanaam nga teg yeneeni sàppe ci ginnaaw naka noonu bu boobaa tamit day tax tamit ba sàppe yi tamit dañoo war a mel noo xamante ne kenn euh, maanaam dañuy xam ne fii kat amatul place maanaam bu boobaa ñu matal ko naka noonu tamit mu war a nekk loo xamante ne dafa daal di jub xocc loolu tamit dafa bokk ci li koy matal niki noonu mu bokk ci tamit ne imam bi bañ a sori ñi nga xamante ne ñoom mooy sàpp bu njëkk bi maanaam ngir ne imam bi sàpp bu njëkk bi comme euh, ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon li yàll ya nii li yàll ya nii ulun ha nga xamante ne ñoom ñooy borom xel yu mat yi ci yéen nañu ma gën a nañu ma jege maanaam loolu moom mooy tegtal ne kon ne imam bi dafa war a nekk koo xamante ne bu taxawee ci kanam warul sori sàppe bu njëkk bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci yenn jàkka yi nga xamante ne sàppe bi maanaam imam bi day daal di taxaw daane ko fu sori ba nga xamante ne moom ci boppam fi mu toll bu amatoon gànt rek maanaam du mën a xëcc kenn ngir ne dañoo waa ji dafa sori lool géew googu xeetu sori naka noonu sàppe yi tamit seen diggante waruñoo sori woo géew googu sori itam ngir ne bu fekkente ne dañoo sori woo googu sori maanaam euh, li nga xam maanaam bu boobaa loolu du bokk ci maanaam matal sàppe yi ngir ne matal sàppe yi daf ci bokk tamit mooy euh, nit ñi di jege wantoo te loolu noonu bu boobaa day daal di laaj rek lu demee ne euh, nit ki fu mu mën a sujootee place bu mu mën a sujootee ba pare ñu teg ci lu tuuti rek loo xamante ne tey bu ñu doon teg saatir bi foofu lañ koy teg hmm. comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisi woon bi ñu tollee ci wàllu saatir loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo jaaru ci eh, ay sàppe waaye sàppe boo xamante ne dañ koy tege ci anam goo xamante ne ñeneen nit ñi buñ ñëwee sax duñu am fuñ mën a jullee ba ñu ci biti te fekk mënoon nañoo matal sàppe yi loolu tamit bokkul li nga xamante ne moom mooy sunna te bokkul ci li nga xam ne moom mooy yoon loolu kon moom mooy li nga xamante ne eh, ci eh, mënef naa tënk yi nga xamante ne ñoom ñooy ci wàllu jubal sàppe ci loolu am na tamit yeneen yoo xamante ne inchaa allahu taala benn bu ci nekk dana ñu ko gis ci buntam ci mottali sàppi lan lay tekki lu leme nekke maanaam ni nga xamante ne noonu la ñu war a tekkee mbagg ak mbagg tànk ak tànk mm-hmm. ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci mbir yooyu noonu ak euh, yooyu yëpp ak tagi tamit maanaam njëkkee sàppe bu njëkk bi ëpp solo yeneen sàppe yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ak sàppe bu njëkk bi lan lay tekki ak yeneen masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju yooyu yëpp inchaa allahu taala dinañu ko gis الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك آه، تمم الإمام أبو الوليد الطيالسي رحمه الله تعالى الباهلي آه، الباهلي الطيالسي دي دي تمت وبصر رحمه الله تعالى mi ngi génne àdduna 133e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 227e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al buxaari ak imam abu daawud rek ñoom ñoo soloo ci moom mu nekk seen sëriñ waaye ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ngir ne seen ay sëriñu sëriñu ñeneen ñi ci des lañu rahmatullahi ala al jamii mu ne qaala xaddasanaa Shu'ba ma'a al-imaam ibn al-Hajjaaj al-Awtaki al-Azdi rahimahullahu taala abul bistaam rahimahullahu taala moom mi nga xamante ne mi ngi génn àdduna 82 jàpp 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di amiirul mu'miniin mu ne qaala axbarani Amr ibn Murra muy imam bu mag rahimahullahu taala muy abu abdullah dañu wax tamit abu abdurrahman amr ibn murrat ibn abdullah ibn tariq ibn alxaaris ibn salamata ibn kaab ibn Euh, di euh, euh, kuufi rahimahullahu taala di al imam ñu koy wax al ama ngir dafa silmaxa moom mooy kon abu abdullah al jumali al muradi rahimahullahu taala di imaamu ci waa kuufa rahimahullahu rahmatan waasia moom mu ne qaala mu ne moom moom moom moom imaam amr ibn murra rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw gaddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne imam ahmad rahimahullahu taala laaj nañ ko ko mu daa di mu daa di kan mooy amru ibn murra mu daa di wax wax ñu rafet bu maanaam mu ne maanaam fa zakka maanaam mu tudd ak cell teem rahimahullahu taala dégg nga maanaam kon moom mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa salim ibn abil jaada moom tamit gisoon nañ ko rahimahullahu taala muy abu asma salim ibn abul ibn rafi mom tamit de kufu yi la rahimahullahu taala muy abu asma al ghatafani al ashja'i rahimahullahu rahmatan wasi'a muy ngi aduna àdduna 97e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta no qala mun ne sami'tu degna an nu'man ibn bashir رضي الله تعالى عنهما موي سيدنا موي داخل من ابو عبد الله نيكا تاميت ابو محمد النعمان بن بشير بن سعد بن سالفة بن الجلاس بن الخلاص ابن الجلاس مو جلسي ابن الخلاص ابن الجلاس ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب الخزرج الأنصاري الخزرجي رحمه الله تعالى dégg mom muy imam muy maanaam muy muy muy saxaaba nekk waa madinatul munawwar ala sakin afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi gane aduna ñaarelu at ci ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak sayidna abdullah ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu taala anhuma ñoom ñoo njëkk gane aduna ginnaw bi nga xamantene mom moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit ñi gàddaay dem madinatul munawwar ala saakiniha afdalus salatu wassalam te moom moom ak kon moom mooy maanaam Seydina Abdullah ibnu Zayd ibnu euh, Seydina Abdullah ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu taala anhu moom moo njëkk gane àdduna bokk ci muhaajiruuna yi amma nga xamante ne moom moo njëkk gane àdduna waa ansaar mooy Seydina Nu'man ibnu Bas ibnu Bashir radiyallahu taala anhuma ci ñaareelu at ci gannaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi amna nak ñi nga xamantene dañuy wax ne yenent moom li mu déggee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moom mooy xadisam bu siiw moy al halal bayyinun wal haram bayyin wa baynahuma umurun mustabihaat manam ba hadith bu si boobu rahimahu radiyallahu taala anhu waye li nga xamantene dal mom lañu xam mom moy ne solo bi nga xamne mom la solo ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lu wér la radiyallahu taala anhu te musnadam 114 hadith la yo xamante ne imaam al bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma dëppoo nañ ci ci solo ci juromi hadith imam al bukhari weto na ci ben hadith imam Muslim weto ci ñent hadith ci hadith Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma dañu wax Nu'man di wax an-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu mu ne yaquulu dé mu ne nee na qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la tusawwun na giñ naa ne da da ngeen di matal su fuufakum seeni sàppe maanaam kon ne lool dafa nekk loo xamante ne faw da ngeen koo war a def insha allahu taala dinañ ñëw ndax war na waaw wala déet waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nii mu ko waxee nii day tegtale ci anam gu leer ci ne war da ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute daan ci ñëw insha allah ci kan moom moo wax lan waaye mu ne la tusawun na giñ naa ne da ngeen matal da ngeen di matal suufakum seen sàppe aw wala maanaam te da ngeen koy matal maanaam mooy da ngeen koy yemmele tamit ndax sawaa tamit day tekkale yemmele waaye day tekkale comme ni nga xam ne ci mu jugee ci istawa bi nga xam te ne moom mooy tekki yemmoo maanaam mooy euh, mooy yemmele yemmoo ak li nga xam ne moom mooy matal ak mottali maanaam mu ne aw wala boog soo leen deful loolu li nga xam ne moom mooy xew mooy layu xaali fan na giñ naa ni kon buur yàlla maanaam mu daal di waat daal di indi laam bi nga xam ne moom mooy laamul xasam buy tekki la waat ak waaw bi nga xamante ne moom mooy ak maanaam muy muy qasamul muqaddar maanaam mooy waat gi nga giñ gi nga xamante ne dañ koo nattale ak laam gi nga xamante ne mooy laamul qasam ak nuun gi nga xam ne mooy nuunu tawkid maanaam nuun bi nga xam ne ci kanam moom mooy nuun bi dëgëral ne lii moom faw dana am maanaam mooy nekkoon dafa boole ñett mbir yoo xamante ne yëpp day gën di dëgërël ne faw lii moom ngeen di def par force maanaam lu mënti xew mooy lii faw lii mooy am لول يننتي بي صلى الله عليه وسلم بوكو واخي والله امول سيكي ساك تي نه كون لول دا نا ام تي لول نين ني غيس نانكو كوم نيغا خامن ان شاء الله تعالى نون لنجي غيس مون لا يو او ولا بوك سو لا ديف لول لا يو خالفنا دا نا ووتال الله غيناني كون يالا مانام وور موي نه دا نا ووتال باينا ديغنت وجوهكم سين خار كانامي مانام موم موي سين خار كانامي لي مي تيك موم موي سين خولي maanaam mooy ne seen xar kanam yi bu kenn ku nekk bu gisee sa moroom it maanaam du ko neex wala boog maanaam dina gis ci moom loo xamante ne dana tax ne wuute nañ naka noonu wala boog wajj tamit day tekk wàll maanaam mooy wàll yi ngeen jëm yàlla daf koy daf koy wutale maanaam loolu tamit kon bu boobaa ñu xam ne maanaam am na ci yeneen riwaayaat xadis mu ne aw luy xaal fan na bay na ko qulubikum wala boog yàlla dana wutale seen diggante xol yi maanaam te loolu boobaa mooy féewaloo gi nga xamante ne moom moo am ci xol yi te li ko waral moom mooy ñàkk sàpp yi nga xamante ne moom mooy ñàkk sàpp yu te loolu moom li nga xamante ne moom moo tax ba fi mu toll maanaam jullit ñi mënunoo bennoo maanaam seenu ñàkk bennoo mu toll bu ko kenn euh, wala mu du jiiñ ko lu bari bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li gën a fés te loolu bis buñ ko toppatoo woon ci mboolem jàkk yi ci adduna bi nga gis ñu matal ko bu boobaa léegi nga gis xolu jullit ñi daal di dëppoo waaye fii mu toll xolu jullit ñi mënuñoo dëppoo ñoo ànd lu ko waral ngir ne seen sàppe manta mënta maanaam du jub loolu benn la beneen bi ci des moom mooy ne ci biir jëmmi jàkka ji ñu ne wala bokk ci mbooloo te gis nga même ñun fii ci daara bu fekkonte ne bu ñuy julli duñu suñu sàppe yi du jubu léegi nga gis nit ñi ñëpp commencé fii wudu maanaam naka noonu tamit loolu moom mooy xew tamit ci jàkka yi nga gis jàkk joo xamante ne da nga fay dugg rek daal maanaam daal di yëg ni fii ab tension dafay am ay xëccoo xiiroo ŋaayoo maanaam bu dul jeex maanaam mel ni comme si maanaam ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci langue politique bi léeg-léeg ñoo leen di tane te loolu li nga xamante ne moom moo ko indi euh, lu ci baree bari day daal di jugee ci ñàkk a defar sàppe yi yàlla nañu yàlla sàmm te musul ñu ci loolu maanaam loolu day tegtalee lii nag day dëgëral li nga xam ne moom law xanafi yi wax rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy zahiriye rahmatullah alayhim nga xamante ne dañoo jàpp ne maanaam sàppe gi defar ko maanaam dafa nekk loo xamante ne farata la maanaam lu war la maanaam mu nekk loo xamante ne soo comme soo ko bàyyi comme ne borom ad-durrul muxtaar wax rahimahullah taala imam ibnu abidin rahimahullahu taala raddul muxtaar ila durril muxtaar moom ibnu abidin rahimahullahu taala ne lool moom mooy li nga xamante ne moom la seen waa mazhab tànn maanaam ne moom mooy euh, ne loolu dafa nekk loo xam ne dafa war et que ku ko bàyyi da ngay am bàkkaar comme ni nga xam ne insha allahu taala noon la ñuy gisee ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala loolu la saxal te saxalul leneen xadis ah, bi euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek maanaam wala bokk imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi naam xadis ni man fii rek la ko indi mooy xadis seydna Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu imam uh, Abu Dawud imam Muslim moo ko indi xadis numéro 436 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 662 663 ak 665 uh, imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 227 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 810 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 994 imam ahmed ibn hanbal na ko xadis numéro 18374 18385 18389 18400 18427 ak 18430 kon nañ gis na asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu jamii ne qaala bilis maanaam fii ànd ak ne buntu bi li nga xam te ne moom la ñu li nga xam ne moom la ñu fàtte wax maanaam moom mooy ne lan mooy tegcale li tax imam al buxaari rahimahullahu taala daal ci wax ne inda al iqamati wa baadaha maanaam moom mooy ne dafa ñëw ci yeneeni riwaay yu tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci maanaam circonstances yi la ko waxe woon comme ni nga xam ne loolu la ñu gisee ci yeneeni xadiis yi et que ci wàllu ci saxiixu imam muslim rahimahullahu taala dafa wax ne euh, ne euh, euh, dani qaala zalika in daani qaala zalika inda kaada an yu an an an yukabbir maanaam te loolu bi ko yenente bi di wax sallallahu alayhi wa sallam mooy jamono ji nga xamante ne xaw tuuti mu kabbar maanaam mi ngi doon waaje a kabbar maanaam kon loolu mooy tegtale ci anam gu leer ci ne maanaam kon jul loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko ngir ne dafa bokk ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni muy faral di doxale mooy léeg-léeg mu indi benn xadis fekk maanaam ni mu tuddee bunt bi dafa am partie wu boo xamante ne du ko indi ci buntu boobu soit dana ko indi feneen ci biir saxeex bi wala boog mu xam ne xadis bi am na bu boobaa mu daal di xirtal taalibe bi bu boobaa bu jàngee téere bi ba noppi te gisul xadis boobu yëpp foofu ci téere bi mu daal di dem gëstu ji ci yeneen i téere xadis maanaam bu ko defee ndax mu daal di gis riwaaya boobu loolu moom mooy li nga xamante ne léeg-léeg imam al-Bukhari rahimahullah taala ngir ne dafa bokk tamit ci li tax mu muy maanaam ni muy bindee téere bi moom mooy di ci taalibe bi ngir muy gën di gëstu loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ay ay ay maanaam ak doxalinam rahimahullahu taala rahmatan waasi'a na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana abu ma'mar xadis bi abu ma'mar mooy al imam abdullahi ibn amr ibn maysara muy al basri rahimahullahu taala tamimi rahimahullahu taala mooy al imam abu ma'mar al minqari rahimahullah di imam ci waa basara rahimahullah taala mi ngi génn àdduna Ane ginaaw gadda yenen ya année bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam al Bukhari imam abu Daud ñom ñoo solo ci mom mu nekk seen serign waye imam muslim imam ak an-nasa'i ñom solo nañ ci keneen ku solo ci ñom rahmatullahi eh, ku solo ci mom rahmatullahi alaihim kon day gis na ay yëpp ngi ci kutubu sita ba mu des ci sunan ibnu majah rahimahullahu taala mu ne qaala xaddasanaa abdul waaris te moom mooy gisoon nañ ko gisaat maanaam maanaam ndax ñu ne càllale gi gisoon nañ ko bu yàggul dara maanaam jëmmi càllale gi maanaam te moom maa imaam abu ubayda abdul waaris ibnu said ibnu zakwaan at-tamimi rahimahullahu taala moom tamit di imaam waa waa waa basara muy abu ubaydata al ambari rahimahullahu taala moom mi ngi gane àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna maanaam ay weer ginnaaw al imam Hammad ibn Zayd ca Basra rahmatullahi alayhima muy cent quatre-vingtième année moom ci la adduna àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdul Aziz te moom mooy moom Abdul Aziz ibn Suhayb rahimahullah taala abu hamzata albunaani ah, di moom tamit di waa basara ah, rahimahullahu taala moom solo ay xadis ci saydna anas ibn malik radiallahu taala anhu te moom la ëpp lu mu solowee ci moom mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñu solo woon ci moom la waaye moom ci jëmmi boppam bëriwul lu mu soloo ci ay xadis rahimahullahu taala solo na ci saydna anas ibn malik radiallahu saydna abu nadar abu nadarata al abdi أكي شهر منه حوشة رضي الله عنهم نجا نانو آه، بنيها من يوم نيو صلاة مم مي إمام يوم أكي كمان الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى كمان عبد الوارث ديني كمان سفيان بن سعيد الثوري كمان حماد بن زيد آه، كمان هشيم آه، أكمل من نيو رحمة الله على الجميع موم ا ميغي ген ادنا 130 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم اي حديثا ميغي جي كتبو سته عن أنس سيدنا أنس بن مالك آه، من عن أنس وأمي سيدنا أنس بن مالك إن النضر بن ضمضم الأنصار الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الأذنين مم مم مسند موي 2286 حديث يو خامتاني متفق عليه 180 حديث لا إمام البخاري ويتو 80 حديث مم مسلم ويتو 90 حديث في حديث سيدنا أنا بن مالك radiyallahu taala mi nga xamante ne euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt euh, quatre-vingt-treizième année wala quatre-vingt-dix jàpp quatre-vingt-treizième année ci wuute gu borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim bi mu génn àdduna radiyallahu taala anhu moom tamit euh, muy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna fukki at laataa gàddaay ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta te comme niñ ko gisee moom ci muksiru nay bokk tax deux mille deux cent quatre-vingt-six moom mooy li nga xam moom la من أن النبي نك ينتبى صلى الله عليه وسلم قال أنا أقيم تحول لنا أصوه فسابي من أن ين تحول تلول كون ما نم تحول نك كون دنيج سنر ليميت كي كون مم من أن ين كون أنم بيمون خمن نون لجنا ماتك جرن بورام بسخ حاله وتعالى بيمون يوهو نورك نك صلوا وعرف أن أقيم الصلاة ما نم تحول لين جولي ما نم نيجا خمن تنا بوابا كي خمن تنا مم مو نورك جولي te taxawalul julli maanaam defu ko ni nga xam ne noonu la war a defee taxawal matal rukooy matal sujjóot yi matal ponk yi tari tari maanaam matal tari bi ak yu mel noonu kooku julli na mais taxawalul julli bu boobaa bokkul ci li nga xam ne ñoom ñoo taxawal julli naka noonu euh, bu boobaa julli gi da moo tax day daal di desee baax moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun toskere ñeel na ñi nga xamante ne Euh, maanaam ñu ngi julli te mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane seen julli yi maanaam duñ ko def ci waxtu wi wala bu ñu ko defee itam nañ koy defee maanaam dañ koy parax paraxee wala boog nañ koy defee du baax. Mm-hmm. loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom mooy ni kooku kon dana julli waaye taxawulul julli comme ni nga xamante ne nag noonu lañ digalee ku taxawal julli noonu tamit la ñu digalee ñu taxawal sàppe yi te moom mooy ñu matal ko def ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee te loolu moom mooy tegtal li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal di ko indi ci baabu taswiyati sufuuf maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne wan wanen dañoo war a matal julli gi waaye nag fi nga xamante ne li nga xam ne moom mooy tegtale ne euh, li tax mu indi ko ne euh, baadal maanaam euh, indal iqaamati wa baadaha maanaam faf liqaam bi ak ginnaaw liqaam bi moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñëw ci bunt bii di ñëw insha allahu taala bi sayyidina anas radiallahu taala ne uqiimati salaatu fa aqbala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam taxawal nañ julli gi mooy li nañ ba yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy dëgmal daal maanaam war ñu ginnaaw maanaam war ñu kanam jublu ci ñun loolu mooy tegtale ne kon ci maanaam ba jamono jooju lañ ko def loolu yëpp day tegtale li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi mu ne fa inni naka man araakum maa ngi leen di gis xalfa dama leen di gis xalfa bahri sama ginnaaw maanaam ginnaaw maanaam sama ginnaaw hmm. maanaam mooy su ma leen wanee ginnaaw man dama leen di gis loolu dafay tegtalee ay mbir bu njëkk bi maanaam mooy kéemtaan bu mag gi nga xamante ne moo nekkoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne ni muy gisee ci kanam noonu lay gisee ci ginnaaw loolu tamit maanaam loolu day wane maanaam ne maanaam mu nekk kéemtaan ci moom loolu mooy bu njëkk bi ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom lay tegtale euh, moom mooy moom moom mooy li nga xamante ne bu ja sa munaasaba yi mu ko wax yépp xadiis yi nga xam ne moom lañ ko soloo mu wax ko mooy jamono yi nga xamante ne dañuy julli maanaam mu naan matal leen rukoo yi wala boog dee leen teewlu seen julli yi wala boog mu naan dee leen eh, maanaam boo leen dee julli maanaam na ngeen matal na ngeen matal sàppe yi comme fii maanaam loolu li muy tegtale kon moom mooy xaal bi nga xamante ne moom moo am ci xaalu nit ñi moom ci boppam daf koy eh, maanaam moom ci boppam daf koy yëg te moom bu nekkee ci kanam di jiite nit ñi nit ñi nekk ci loo xamante ne jaaduwul loolu day nekk loo xamante ne moom ci jëmmi boppam maanaam loolu le fait que mu koy yek mu koy gis diko xam lolu day nek lo xamne musibe la ci nit ki ndax lolu mom motax fi mu ne man dama len di gis ci sama ginnaaw te ci benen hadith bi mu ne aw la yukhalifan allah bayna wujuhikum wala bok bayna qulubikum wala bok faw yàlla dana euh dana wuutale manam dana dana dana dana fi wala seen xol yi te lolu mom day tektale ci anam gu leer ci ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam gis gi muy gis nit ki ci lu bon lolu manam musibe la ci nit ki maanaam moom mooy kon nëbb gi nga xamante ne moom la nit ki di nëbb maanaam mbir yi ba ci biir maanaam nit ki bu koy def li muy def te mu def ko rek ci tëju moo gën a moo gën a moo moo gën mu doonte bàkkaar la maanaam mu def ko ci tëju maanaam moo tane que mu defoon ko ci fekk nit ñi ñu ngi koy gis te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñoom buñ ko defee daf leen di gis ci ginnaawam loolu moo tax mu daal di leen di yëgal na leen kon nag maa ngi koy gis beneen mbir bi ci des nag moom mooy ne xaal bi li nga xamante ne moom la amee ci moom moom mooy ne ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël le dessus maanaam dafa dafa nekk ci kaw ba xamante ne ci kaw yaram bi loolu nag bokk na ci li mu indi ci moom mooy lu deme nekke nelaw maanaam ay bëtam dana nelaw waaye xol bi du nelaw ñaareelu mbir bi nga xamante ne bokk na ci yi nga xamante ne indi na ko ci moom comme niñ ko gise woon moom mooy ne amutoon takkandeer maanaam ngir ne ruux bi moo jël dessus bi te ruux bi leer te moom mooy ne leer la moom sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu mbir mi nga xamante ne moom la moom la waral mooy lu demee nekk nii nga xamante ne day mën di gis ci kanam comme ni nga xamante ne noonu lay gisee ci ginnaaw ndax nit ki nga xamante ne dafa dem ba bi jël dessus ci ci yaram yi maanaam carrément kooku noonu day mën di gisee ak mboolem cër yaramam bi maanaam mboolem li nga xamante ne moom moo nekk eh, maanaam particule bu nekk ci jëmmum ji day daal di gis di dégg ak et maanaam day day day day mën a eh, gisee ak loolu di mën di déggeek moom ak ak yu mel noonu. loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam moom mooy eh, mbiru eh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa am maa nag ah, xaal bii nii nga xamante ne nit ki dafa dem ba doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yegg si ci ruux bi loolu moom xaalu kummal kum maanaam ñi gën a mat ci kummal yi la maanaam ñi gën mag màgg ci kummal yi ñoo mën a am loolu nga xam ne dañuy dem ba nga xamante ne seen ruux ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy la seen ruux di jeex carrément ba nga xamante ne dañu mën a dundu xaal boobu ku mel ne ak comme ni ñu ko gisee woon al imam Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu taala anhu moom nee na moom ci jëmmi boppam mës na koo dund maanaam eh, taxaw fekk mu taxaw ci kanam minbar bi di jiite ni ñuy julli mu dundu xaal bii nii nga xamante ne lépp lay gisaloo en même temps maanaam te loolu nag eh, mbir la moo xamante ne tamit bokk na ci li muy tegtale mooy mooy ne eh, julli solo bu rëy gi nga xam ne moom la am solo te mu nekk li nga xamante ne moom mooy tàkk ci mooy tax maanaam mooy muy mooy mooy tax nit ki di gën a jege boroomam subhaanahu wa taala te moom mooy buntu bi mag bi nga xamante ne ci la mboolem fatxu yi ak euh, musaahadaat yi di amee te loolu moom moo tax xadiis yu mel nii rotewul ci benn xaal lu dul ci xaalu julli ci la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di waxee loolu tamit euh, moom dañ koy jàngee ci suñu xadiis bi wallahu taala alam xadis euh, bi imaam al Buxaari di woon na ko xadis numéro 419 dina ko indiwaat xadis numéro 719 mooy xadis bii di ñëw incha allahu taala dina ko indi xadis numéro 723 725 742 ak 6644 imaam Muslim indi na ko xadis numéro 425 ñaari doon ak 433 434 imaam Abu Dawud as-Sijistani indi ko xadis numéro 667 668 ak 669 imaam imaam an-Nasa imam an-Nasa'i rahimahullahu taala na ko xadis numéro 813 814 815 845 ak 1117 imam ibnu Maaja na ko xadis numéro 993 amma imam Ahmad ibnu Hanbal bare bare bare indi nañ gis kon xadis bi ñoom ñëpp waa saabu sitta indi nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' mu ne baabu iqbalil imami ala an-nas inda taswiyati as-sufuf baab buntu is iqbaali dëm dëgmal du ak imaam imaam bi ala naasi te nit ñi inda bi ñuy taxawal bi ñuy taxawal sàppe mottali maanaam bi ñuy jubal sàppe loolu tamit dafay imaam al-Buxaari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi maanaam leeral ne imaam bi maanaam moom mooy ki nga xam ne moom moo war a taxaw di leeral di di di taxawal sàppe yi maanaam ba noppi moom maanaam moom la imaam bi moo ko war a def maanaam bu boobaa moom moo koy toppatoo Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu maanaam euh, maanaam moom daan na ko wut sax koo xamante ne moom moo ko daan defal maanaam moom dafa taxaw comme bu nit ñi mbooloo mi bu ñu baree moom da daan du wutoon na koo xamante ne moom doonul woon kàbbar lu dul kooku ne ko léegi sàppe yëpp jub nañ moom mu doog a taxaw doog a kàbbar maa nga xamante ne te loolu day tegtale li nga xamante ne noonu la xëre woon ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam xam ne bu boobaa dañuy taxawal sàppe bu njëkk moom dana ko gis waaye danaan diw sàngam yow xoolal kooku nag di xool di wër di xool ba sàpp yëpp ba ni ko sàpp yëpp mat nañ sàpp yëpp baax nañ moom mu nekk mu ne waa léegi baax na mën nga kàbbar mu doo ko kàbbar loolu tamit bokk na ci liñ jànge moom mooy ne kàbbar gi du liqaam bi day jeex rek par force rek léegi léegi danoo war a kàbbar gaawul gaawul gaawul sinon liqaam bi dañu ki wat liqaam bi déedéet gisoon nañ ko ci ne maanaam imam nga xamante ne moom la Euh, maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba amee ba ñu lëkkaamee ba pare mu am ku am pro lu ko gaaral mu daal di dem wax ak moom ba wax ak moom lu yàgg doog a dellu si waat daal di kàmbarte lëkkaamaatu ñu gisoon nañ ko ci hadith sayyidina anas bi radiyallahu taala naka noonu fi mu ne gars yi taxaw leen ndekete dafa fàtte woon ne dafa waroon na sangu farata mu dem sangu ji farata dellu si waat gaa yi fekk fañ taxaw mu ñëw kàmbarte lëkkaamaatu yooyu yëpp day tegtele ne maanaam liqaam bi du ne faw day pare léegi rek ñu ne gawul gawul gawul maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko awaam yi di defee ah yal yàlla sàmm maanaam beneen bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, lool loolu Seydina Omar kon radiyallahu taala loolu day tegtale li nga xamante ne noonu la fonki woon sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aliyin karamallahu wajhahu masalan am na ñoo xam sax du doon duur seen tànk yi bu ko defee ñu mën a seen ah, euh, ngir seen ak Seydina Bilal tamit radiyallahu anhu nga xamante ne acca taxawul yow ni nga taxawee baaxul fëgg tànk bi tuy tuy acca taxawal bu maanaam ngir ne euh, seen maanaam seenu taxawaay baaxutoon te loolu tamit gis nañ ni merloo na yeneen bi sallallahu alayhi wa comme ni nga xam ne insha allah taala dinañ ko gis mooy bi mu taxawee di sàppeel nit ñi sàppee ba gay jekki-jekki ba jàpp ne sàppeel bi baax na rek am benn waaye bu génnee dënn bi maanaam mu daa mu yeneen bi mer ci loolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu yëpp day tegtale am solo bi nga xamante ne moom la teg sàppe bi maanaam mujjug ni nga xamante ne noonu la amee solo والله تعالى أعلم من قال بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أحمد ابن أبي رجاء تمام الإمام أبو الوليد الحنفي الهروي رحمه الله تعالى أحمد ابن عبد الله ابن أيوب الحنفي آه، رحمه الله تعالى ما لي dafa bokk ci ñi دنيا xamante ne Euh, maanaam ku ñu askanale mbir moo xamante ne dañuy bañ lënt lëntaam maanaam bu ñu naan xanaf yi te du xanaf yi ci mazhab mm-hmm. maanaam loolu euh, dégg nga maanaam ñu xam ne askan la waaye du du ne mazhab la maanaam loolu tamit lu mata bàyyi xel la rahimahullahu taala imam al buxaari rek moom moo soloo ci moom te dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, afraadul buxaari yi nga xamante ne imam al buxaari moom moo wéetoo Euh, ci moom te fukki xadis ak ñaar rek la solo ci moom euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci euh, xaaj bu maanaam ci xaaju weer jumaadal axira maanaam ci jamono jooju ci la génn àdduna rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana muawiyatu ibnu amran maanaam moom mooy muawiyatu ibnu amr ibnu muhallab moom tamit di waa kuufa ci cosaan waaye baghdadi la rahimahullahu taala mooy abu amran al baghdadi al asdi rahimahullahu taala moom mu ne qaala xaddathana zaidat ibnu qudama moom mooy euh, al euh, abu salt zaida def na ko daamat al thaqafi euh, rahimahullah taala moom mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam waa kuufa la comme maanaam nga gis ne xadis bi ñi ci nekk ñëpp maanaam waa kuufa lañ ba fii nii mu ne qaala xaddathana xumayd ak tawil moom it gisoon nañ ko gisaat ko mooy al imam abu obayda dañ ko abu obayda wala abu obayda xumayd ابن آه، آه، ابي حميد الطويل امم و رحمه الله مانام نجيك ني نوي وا كوفه موم مي وا بصرلا رحمه الله تعالى من ген ادنا 143 اني غينو غدا يرنتبي صلى الله عليه واله وسلم موي طالب سيدنا انس بن مالك وايي كوم لي امام شعبه واخ رحمه الله تعالى نانا نيار فك اك حديث رك لا سيدنا انس رضي الله تعالى عنه Euh, euh, yeneen yi ci des yëpp nga xam ne moom la solo ci moom maanaam ci saabit la ko déggee mooy mm-hmm. saabit al-Bunani euh, rahimahullahu taala moom mu ne qaala xaddasana anas maanaam kon fii da ngay gis ne bii dafa bokk ci ñaar fukk ak ñeent yooyu nga xamante ne da koo déggee ci sayidna anas ibn malik mm-hmm. radiallahu taala an te yooyu la imam al yi di indi ngir ne imam al mooy damaam chartam yi mooy ne mbir mi dafa war a nekk loo xam ne maanaam ittisaal da ci am mm-hmm. maanaam ak jokkaloo day war a am ci càllale gi mu ne na mu ne Anas ibn Malik radiyallahu taala gis nañ ko léegi mu ne qaala nee na annahu qaala maanaam euh, qaala nee na uqiimat taxawal taxawaleef nañ as-salaatu julli fa aqbala mu dëgmal alaynaa ci ñun rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa bi waji yi ci xar kanamam bu tedd gi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon loolu mooy ne imam bi bu ñu liqaamee ba noppi maanaam dafay daal di taxaw jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi ci sàppe yi xool ndax sappe bi jub na waaw wala déet maanaam te imaam bi dafa war a taxawee mbirul na nañ la taxawalee sàppe yi su fekkente ne moom taxawal na gis na sappe yi jub na bu boobaa mu daal di julli maanaam waaye su fekkente ne sàppe yi jubul nag bu boobaa mu daal di wax comme ni nga xam ne noonu la yeneen bi doon waxe sallallahu alayhi wa fii mu ne fa qaala mu ne ak yi mu taxawal leen su sufuufa comme seen sàppe yi wataraasto te na ngeen euh, ngeen ruub faloo maanaam ngeen raaxaloo comme ni nga xamante ne maanaam comme ni nga xam ne comme ni ka annahu bunyaanu marsuus comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala bëgg ñu taxawe comme tabax bu ñu ni ñu raaxee maanaam ay brique brique bu ne ñu raax ko ak moroomam ba nga xamante ne dañuy tëppaloo nekk benn nga xamante ne ku ku leen bëggoon a bët du ko mën loolu moom mooy li nga xam ne noonu la war a taxawee ci sàppe lii day tegtale ci anam gu leer comme ni nga xam ne incha allah danañ ko nar a gis ji que ni sàppe maanaam dañoo war a taxaw dañoo war a roofaloo waruñu nekk sàppe boo xamante ne dañuy bàyyi comme ni nga xamante ne bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne laa tatraku xalalun li bu leen bàyyi seytaane yi am benn euh, benn fenn fu ñu mën a jaar. am na nga xamante ne moom day taxaw daan seytaane bu bu jaarul fii dana jaar fii maanaam di bëgg a wax ne kon ci yàlla yi lay jaar. kooku day foowe diine ji maanaam te loolu kokkali googu noonu su fekkente ni xam na li muy wax day génn ci lislaam ngir ne day foowe yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent bi ne tafaloo leen comme ni nga xam ne noonu la miir bi tafaloowee def leen noonu yow nga naan seytaane bu jaarul fii dana jaar fii maanaam di foowe bi sallallahu alayhi wa sallam loolu képp ku ko wax te fekk li nga wax xam nga lu muy tekki mooy génn nga ci lislaam loolu ah ñàkk koo xam kee la wax maanaam ñàkk xam ne yeneen ci bee ko wax ak yooyu sallallahu alayhi mais xam ne yeneen ci bee ko wax ba pare nga wax loolu moom mooy génn gi ci lislaam te kooku noonu day nekk koo xamante ne saaxatul adaala lay doon kooku ak maanu teeg doon taxaw loolu li muy teg ngir ne dafa woyofal diine euh, bokk na kon ci li nga xamante ne euh, maanaam kon euh, kon loolu bokk na ci liñ lii day tegtale ci anam gu leer ci ne noonu la ñuy taxawee comme li nga xam ne insha allahu taala dinañu ko gis ci bunt yi di ñëw maanaam ne niñ doon taxaw mooy mbagg yi dañuy ak mbagg yi waaye tamit maanaam ñaari dojoor yi dañuy dañuy dañuy laalanteeg dojoor yi maanaam ne tànk yi ni ñuy ni ñuy tappaloowee te loolu mooy li nga xamante ne moom la yenente bi maanaam moom la saxaaba yi radiallahu taala anhum doon doxale ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen doon xirtal ci ñu tafa tafaloo maanaam ñu raaxaloo maanaam moo tax mu ne wataraa suu mu ne fa inni naka man kat araakum ma dama leen di gis min waraa yi ci sama ginnaaw min waraa zahri ci sama ginnaaw gannaaw maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa comme ni ñu ko gisee woon léegi ni ñuy gisee ci kanamam noonu lay gisee ci gannaawam am maanaam li nga xamante ne maanaam moom moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indiwaat xadis bi moom mooy lu fait que mu ne dafa jubluwaat ci ñoom ngir wax ak ñoom maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne Ah, mooy imam bi war na koo def moom ci boppam mu toppatoo kuy taxawul sàppe yi wala boog ah, moom ci jëmmi boppam mu toppatoo ko boppam waaye mu assuré wu ci ne sàppe yi jub na te taxaw na te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne imam bi moo ko war a def moo ko war a taxawe te moom responsabilité am ci la aju loolu tamit maanaam ah, bo moo taxit imam bu ko ci dul def da ngay gis dañ koy yeb ñëpp ko yeb maanaam imam lay doon boo xamante ne maanaam ñëpp koy contesté te it ñooy nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sàppe yi ñoom it kenn du ci juboo da gis maanaam mu nekk jàkka joo xam ne yaa subhaanallah comme li ma gis benn waaye fan yii rek mu koy wax ne dama dem gars yi tooñ ma ñu tooñ ay tooñ yu rëy rëy dem ci ne damay ñaan ñi nga xam ne damay ñaan yàlla maanaam mooy damay ñaan ngir musiba dal leen waaye ba ma demee ci jàkka ji fekk leen fa ñoom ñu taxaw ci sàppe bu njëkk bi maanaam xam nga loolu mooy ne ah euh, euh, mooy ne ñooñu. du seeru seeru taxaw googu ci sàppe bu njëkk yi moo maanaam maanaam xeetu xeetu jubadi la maanaam dana taxaw ci sàppe bu njëkk bi waaye terewul seen jikko yu dara du ci baax maanaam ngir ne dañuy dem di mën a mën a jël àqu nit ñi ci nu mu leen neexe ci ah, anam go xamantene duñu bàyyi xel dara lo xamantene ay ay akku nit ñi lañu wala yu mel noonu. féewale xol yoy nak li indi mom moy comme ni nga xamne non lañ ko gisee léegi mom moy sàppe yoy wala ñàkk defar sàppe wallahu taala alam gis kon hadith bobu mom lañ gis léegi gis nañ tamit taxrij bi mu ne baabu saffil awwal ba buntu as saff bu sàppe al awwal bu njëkk bi fofu nak imam al bukhari Euh, rahimahullahu taala dafa indi buntu bi ngir leeral ngëneel bi nga xam ne moom moo nekk ci sàppe bu njëkk bi loolu moom moo tax tey li nga xamante ne moom la borom xam yi wax rahmatullahi alayhim ne moom mooy sàppe bu jëkk bi moom mooy sàppe bi nga xamante ne moom moo tegu ci bi imam fi imam bi ne maanaam bu imam bi taxawee sàppe bi ñuy njëkk a teg loolu moom mooy sàpp bu njëkk bi imam euh, euh, ab maa nag am na ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne dañoo wax ne sàppe bu njëkk bi moom mooy sàppe Euh, comme al imam al xaafis ibn abdul bar rahimahullahu taala mu ne sàpp bu njëkk bi moom mooy euh, ki njëkk a ñëw maanaam ni njëkk ñëw ci jàkka ji même bu ñu taxaw taxawul ci fu njëkk bi tamit ci sàpp bu njëkk bi lañ leen di compter maanaam ñu ñooy sàpp bu njëkk bi waaye wax jooju borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañ koo dàq mu am beneen wax joo xamante ne moom mooy sàpp parce que su doon loolu la kon xalis bii di ñëw nii li muy war nar a wax incha allah dinañ ko gis maanaam du sens bi du bari mm. beneen bi ci des mooy ne Euh, sàppe bu te te lu yeneen bi waxoon fële sallallahu alayhi wa sallam ne wa taraasu loolu bu boobaa dootu amati mm. euh, am maa nag liñ fàtte wax ci xadis bu mujj bi mm. mooy ne euh, aqimu sufufakum wa taraasu yooyu noonu loolu dañ koy wax su dee sàppe yi jubul mais du du lu systématique maanaam du loo xamante ne dangay ñëw saa yoo xamante ne dañuy si teg rek maanaam bu ñu lëqaamee rek nga ne aqimu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min Eh, min tamami salaa wa taraasu yooyu xeet yooyu maanaam loolu warul <laughs> systématique maanaam dafa war a nekk loo xamante ne danga koy wax su fekkente ne gis nga ni sàpp bi jubul nga ni gars yi taxawal leen seen sàpp yi defar leen ko roofaloo leen taxaw leen maanaam mbagg mbagg tànk ak tànk voilà yooyu dañ koy wax ci jamono jooju waaye wax ko fekk nit ñi defar nañ seen sàpp ba pare nga di leen ko waxaat loolu du sunna maanaam lii sunna mooy nga di ko wax maanaam ci eh, ci jamono jooju dégg euh, kon sàpp bu njëkk bi kon moom maanaam dañoo war a ñëw njëkk indi sàpp bu euh, maanaam ci sàpp bu njëkk bi am na nag ñu ne euh, kon sàpp bu njëkk bi mooy sàpp bi gën a mat maanaam bi njëkk a moom mooy sàpp bu njëkk bi maanaam bu dee ci sàpp bu njëkk bi am na ay espace wala nit ñi niñ taxawee baaxul wala yu mel noonu bu boobaa boobu kenn du ko compter comme étant sàpp bu njëkk bi sàppe bi gën a mat te bi njëkk a mat boobu la ñu tuddee sàppe bu njëkk bi loolu tamit euh, mënef na koo dégg waaye ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne moom la wax ci musiba bi nekk ci euh, ñàkk def maanaam ñàkk a euh, matal sàppe bi ak ña maanaam ñàkk koo jubal waaye li nga xamante ne daal moom mooy sàppe bu njëkk bi ci ëpp ci li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim mooy ne moom mooy sàppe bi tegu ci imam bi bu boobaa nit ñi bu boobaa képp koo xamante ne yeewu nga da bokk ci ñi nga xamante ni boo leen teelee ñëw soo teelee ñëw da ngay daal di taxaw fan ci sàppe bu njëkk bi waaye ñu nga ñëw ñu naan la sawaay kay taxaw ci sàppe bu njëkk bi nga naan non garawul sàmba demal waay wala loolu ñàkk xel la maanaam loolu ñàkk xel beneen mbir bi nga xam ne nag moom moo ci des moom mooy ne sàppe bu njëkk bi buñ ko waxee ci góor ñi boobu mooy bi gën am maa ci jigéen ñi sàppe bi gën moom mooy sàppe bu mujj bi maanaam loolu tamit euh, beneen euh, masala beneen mbir la ci بنتو بي والله تعالى أعلم من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا أبو عاصم تمام الإمام الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم ابن الضحاك الشيباني رحمه الله تعالى أن الضحاك مام دي تبدو مام دي تبدو الضحاك أه ما ما تم كوكو ما كوك ما مم تبدو الضحاك ما مم نون الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم ibnu Dahhaak ash-Shaybaani rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 121 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 211 année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom xadiisam imaam al-Buxaari rahimahullahu taala moom moo solooti mu maanaam moom sëriñam comme moom gisoon nañ ko bi gën a mag ci sëriñam am deux cent onzième année deux cent onze deux cent douzième année ci la génn àdduna maanaam moom mooy kon ki nga xam ne moom mooy ki gën a mag ki gën a âgé ci ki nga xamante ne moom mooy sëriñu imam al Buxaari yi abu asim bi la rahimahullahu euh, taala euh, moom dégg nga euh, ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imam al Buxaari yi rek moo solo hmm? voilà moom moo solo ci moom moom mu ne an sumay euh, mu ne an Malik maanaam dafa jëlee ci imaamu Malik rahimahullah taala maanaam ci Muwatta la jëlee euh, xadis bi mooy wala maanaam mu ne an Malik mooy al imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik euh, ibn Abi Amir ibn Amr al-Himyari al-Asbahi rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi gane àdduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Sumayy te moom mooy Abu Abdullah Sumayy al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah taala di waa Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wasalaam mi ngi génn àdduna 131 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an abi ay xadis tam ñu ngi ci kutubu sitta an abi saalih mooy euh, Zakwaan Abu Saalih as-Sammaan ñu koy wax Zayyaat di waa Madinatul Munawwara rahimahullahu taala comme ni ko gisee woon maanaam euh, muy euh, ne dañ koy as-Sammaan wala az-Zayyaat maanaam ngir de diw maanaam ay diw la daan jaay mm-hmm. moo tax ñu naan ko borom diw yi eh, diw yi diw voilà. voilà nga xam ne ay diw la daan ay yu niin daal voilà voilà ñoo ko niin niin voilà ni niin boroom lu niin yu niin yi voilà nga xam ne daka daan jëlee ma euh, Madina daan ko yóbbu ay Kuufa ay Basara nga xam ne foofu moo tax mu daan jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon rahimahullahu taala euh, dégg nga euh, mu nekk kon taalibe bu mag ci Seydina Abu Hurayra Eh, radiyallahu taala anhu moom mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu di saaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abdurrahman ibn safran ad-dawsi radiyallahu taala anhu di génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay yéen sallallahu alayhi wa sallam bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp lu ñu solo ci hadis d'ailleurs sax mooy ki ëpp lu mu soloo ci xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam 5374 xadis moom mooy musnadam 326 moom mooy nga xamante ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo ci 93 xadis imam Muslim wéetoo ci 98 xadis ci xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ci musnad imam Ahmad am na ci 3870 xadis radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi anna wa qaala nee na qaala wax na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ashuhadaaw ñi nga xam ne ñoom ñooy shuhadaaw yi maanaam mooy ñi ñuy wax martyr ñi nga xam ne dañoo génn àdduna te génn àdduna yor attey martyr ñi nga xam ne nag ñoom lay wax fii ñim ci nam moom maanaam mooy ñi nga xamante ne deewuñu ci toolu xare waaye attey ñooñu lañ yor àllaaxira maanaam ñooñu lay wax moom mu ne mooy alxariq ki nga xamante ne dafa lab wal mat'un ak ki nga xamante ne dañ koo maanaam dafa feebar euh, ci feebar boo xam ne dafa matale maanaam muy épidémie xew mu daal di tey feebar kooku ñaari maanaam kon ki lab ci ñooñu la bokk ki nga xamante ne tamit bokk na ci mooy ki nga xamante ne dafa euh, mat on la ku nu ku ku dee la ci euh, feebar boo xamante ne wala épidémie la dafa dafa làmbaloo wal ma bëggoon ak ki nga xam ne dafa feebar feebaru biir mooy ki nga xamante ne comme ñi nga xam ne dañoo ay biir bu metti wala ba ñu génn àdduna wala bokk ay estomac wala boog maanaam wala bokk ay cancer wala xeet yu mel noonu ñooñu tamit ci lañ bokk ak ñi nga xamante ne euh, léeg-léeg nag ñu dugal ci ci mabutun bi ñu dugalaale ci maanaam ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji jur doom maanaam ki nga xam dafa ëmb euh, te ëmb bi nekk sababu génn àdduna wala boog muy jur doom génn àdduna wal hadim ak ki nga xamante ne euh, maanaam tabax yee màbb ci kawam maanaam kooku tamit maanaam ñooñu nag ba am nañ ci moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di qiyaasee ci ñii ñi nga xamante ne ñoom ñooy ne ne nii maanaam exemple la yenente bi sallallahu alayhi wa joxe waaye képp ku mel nii maanaam nga xam ne sa xaal dafa jege yi da nga di duggaale ci biir lu demee nekk ki nga xamante ne dafa daanu ci teen wala boog lu demee nekk ki nga xamante ne euh, dafa daanu ci kàmb wala ki nga xamante ne euh, masalan lakk moo ko rey wala yu mel noonu ndax ki lakk rey daanaka dafa jege wantoo ak ki nga xam ne dafa lab ak ki nga xamante ne par exemple ndax ndax day euh, ki nga xamante ne ay fumée maanaam mooy saxaar moo ko rey mu suuf moom moo ki lab daanaka jege wantoo nañ ak ki nga xamante ne masalan dafa am yenn xeetu feebar yoo xamante ne jege moo moo biir bu métti dañoo jege wantoo maanaam ñooñu tamit dañuy def duggaale ci biir ak yu mel noonu borom xam-xam rahmatullah xiyaase ko ci ñooñu yëpp maanaam mooy ne kon ñi nga xam ne ñoom ñooñu yor atte boobu moo tax ñooñu dañuy yor attey ku martyr ci àllaaxira mais duñ ko yor ci àdduna maanaam mooy du tere dañ leen di sang dañ leen di jullee ak yu mel noonu loolu mooy atte bi ci àdduna moom duñ ko yor waaye àllaaxira dañ koy yor loolu mu ne wa qaala mu ne teg ci yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam maanaam mel ni comme si li mu lëkkalee li ci kaw ak li ci suuf mooy ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala ñoom ñaar la nettalee doo wala imam al-Bukhari rahimahullah jàngaloo ko ci ci càllale bi waaye muy tegtale beneen mbir moom mooy ne konk que ñoom la ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxandoowee maanaam day tegtale ne lii muy nar a wax ni maanaam xare la laaj te métit la laaj te maanaam yulli coono la laaj te loolu day tegtale ne képp koo xam ne yaa ngi sàmmoon te loolu yow tamit maanaam atte bi nga maanaam méritu suhadaa yi nga am te loolu moom mooy tax mu wax ci nii mu ne walaw ya'lamuuna ay bu ñu xamoon maa li nga xamante ne nekk na fi tahjiiri ci euh, teel a dem julli ji maanaam teel a dem julli euh, ak teel a julli las gin naan daan njëkkante maanaam kon dañuy njëkkante kan mooy jiitu kan mooy njëkk julli kan mooy njëkk dem ci jàkka ji walaw yàlla mu ne te bu ñu xamoon tamit maa li nekk fi la atamati ci du guddee gi maanaam julli gu guddi gi mooy gée nga xamante ne euh, wa subaxe ak suba la atawuma gin naa ni daañ ko dikkee walaw xabwaan doonte dañuy bàngu maanaam doonte dañuy toog di doxee seen jekkikaay yi sax maanaam wala boog ñuy raam di dem daañ ko def ngir mën a dem maanaam fekki julli yooyu maanaam julli suba ak julli gee walaw ya'lamuuna ay bu ñu xamoon maa mi nga xamante ne fi saf bi nekk na ci sàppe al muqaddam bi nga xam ne moom mooy bi jiitu subhaanallah imam al buxaari rahmaani xam nga ne am na xadis bi am na ay riwaaya maanaam fi safil awwali wal wal nidaa am na ci ah walaw yaalamu nnaasu maa fi su l awali wan nida summa lam yajidu illa al istihaama lastahamu alayhi gisoon nañ ko su nit ñi xamoon ne nekk ci sàpp bu njëkk bi ak saful awal la tudd ak nodd te amuñu beneen moyen lu dul maanaam bantale tirage au sort pour xool kan moo war a nodd wala kan mooy taxaw ci sàpp bu njëkk bi kon daan njëkkante def ko kon daan dem ba nga xamante ne duñ mën a trouver beneen solution lu dul la ñuy bantale day def tirage au loolu fii nag nga gis ne mu ne ak saful muqaddam maanaam sàppe bi nga xam ne moom mooy sàppe bi jiitu bi xam nga al muqaddam mooy ki ñu jiital moo tax mooy sàppe bi nga xamante ne moom la ñu jiital ci kaw yeneen sàppe yi loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne li jumhur wax rahmatullah alayhi ci ne sàppe bu njëkk bi moom mooy sàppe bi njëkk bi ñu njëkk teg mm. boobu loolu lay tegtale mu nekkoon kon day giñ naa ne bu ñu xamoon loola lan moo nekk ci sàppi booba lastaha mu giñ naan daañ bantale loolu tamit day tegtale ngëneel gu rëy yi nga xam ne moom moo nekk ci yii nga xam ne moom la tudd rawatina ci sàppi bu njëkk bi naka noonu mooy ngëneel bi nga xamante ne tamit moom moo nekk ci maanaam euh, day tegtale tamit ne jullit ñi maanaam bu fekkente ne am na ay mbir yoo xamante ne ñëpp ci yam droit ñëpp ci yam àq te kenn rek ko ko war a yor bu boobaa ni nga xamante ne noonu la ngeen di départager moom mooy dañu def tirage au sort voilà wala boog ñenn rek ko mën a am voilà maanaam euh, indi nañ fi ay xar xaru tabaski comme événement bi loolu la maanaam ñi ngi mayee xaru tabaski waaye man daal ñaar laa man a mayee nekk waaye ci daara ji daal laa koy joxe ku ko mën a jël bu ko kenn ñeme wut a maanaam nangu wut a bàyyeeg moroomam maanaam kenn ku nekk ne ah man nag xar mi wax dëgg yàlla soxla naa ko bëgg naa ko kenn ku nekk wax ko te amuñu lu ñu leen di départager ngir ne xar bi ngir la maanaam loolu mooy ne mënuñu koo rendi séddale gars yi boobaa faw kenn lay jël wala ñaar comme ñaari xar la ñaar rek lay dañuy def tirage au sort maanaam ngir mën a départager nit ñi bu boobaa ba pare beneen mbiru bi nekk ci tirage au sort boobu mooy ne day tax ba nit ku nekk daal di mën a nangu mbir mi xam ne dogalu yàlla la jël hmm. maanaam ngir ne bu fekkoonte ne tey dañuy àtte di jëlal nit nit yow yaay àtte boobaa kon mbir mi lay nekk problème problème bu réy lay nekk moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam même bu daan tukki da daan def tirage au sort pour soxnaam yi kan la ci war a àndal su fekkoonte ne defu tirage au sort boobu bu xësee ba dem maanaam te loolu tamit ñi nga xam ne danoo am ay soxna yu bari yu nekk euh, dëkk ba ñu war a leen a indi maanaam masalan te mënuñoo indi lu dul kenn loolu war na mën a sàmmonte ay mbir yu mel noonu wallahu taala alam xadis bi ah, mi imam Malik indi na ko xadis numéro 174 ak cent 346 eh, <coughs> waaw lu moom concerné wul imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 615 652 657 ak 2689 2829 ak 5733 euh, imaamu euh, muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 437 439 651 1914 ak 1915 imam euh, imam euh, at-Tirmidhi rahimahullahu taala in na ko xadis numéro deux cent vingt cinq ak deux ak mille soixante trois imam an-Nasa'i in na ko xadis numéro cinq cent quarante ak six cent soixante onze euh, imam Ibn Maaja in na ko xadis numéro sept cent quatre vingt dix cent quatre vingt euh, dix Ahmad ibn Hanbal lu bari bari la ko indi kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu xadis ba mu des imam ibnu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah